des jours du mardi 19 septembre 2023 ñu ñëwaatal leen ci rebondissement coowal kii nga xamante ni mooy Awa Baba Thiam kooku mooy su ma xamoon ki la yar ma yaroo ji fa doomi Baba je crois que yéen a néeg la borom a cay fanaan ginnaaw coowal audio fuité yooyu nga xamante ni jógoon na ci kaw kii nga xamante ni mooy Awa Baba Thiam ginnaaw bu mu doon mayee doomam en mariage mu jëloon kii di xaritam de 20 ans bi nga xamante ni ànd nañu mu ndayale ko kii nga xamante ni mooy je crois que après loolu affaire bi dafa mujj indi revirement de situation ay audio lañ ci gis ki nga xamante ni moom la ndayale woon doomam gis ni ko daf ko naroon toroxal tuutal ko moo taxoon mu indi ko ci xew boobu ginnaaw loolu diggante xarit ak xarit mu yónnee ko ay audio wax ko li ko naqadi audio yooyu nag la ñu mujjoon gis mu tas ci mbedd bi ñëpp di ci jot nekk ci réseaux sociaux yi partout à travers le monde ku ci nekk di ci ngawti ngawte ginnaaw loolu nag kii di Awa Baba Thiam dafa porté woon plainte ki nga xamante ni mooy Sala Sow ndaxte nee na daf ko diffamé ndaxte ci bir audio yi waxna ci ki di Awa Baba tiam mënul sax fay kërëm pour puukare la bëgg da fay sul bokki di wat bokki Awa Baba tiam nak mo porté won plainte ki nga xamanteni moy mooy Salla Sow ni ko Olof Ndiaye di waxé rek yene néeg la borom a fanan waye bañu démé ci demee ca ga dafa mel ni Awa Baba tiam limu yene won woon Salla Sow moom moo cay comme niñ ko waxé won rek audio yoyu bi Awa Baba tiam porté plainte ginnaw machine yi nak ño wax ndaxte nee naa leen cybercriminalité ak euh, sûreté urbaine xarañ nañu xarañ boo xamante ne lépp loo xamante ne dafa jaar ci ay machine suñ ko saytoo dañuy xam fan la jógee ginnaaw bi enquête bi ubbee nag ki nga xamante ni mooy influenceur boobu moo xamante ni moo jëloon audio yi yónnee ko ki nga xamante ni patron site la nekk foofa ca bitim réew bokku bañ ko convoqué je crois que machine yi moo parlé audio yi dafa jógee ci téléphone Awa Baba Thiam jaar ci téléphone kii nga xamante ne mooy influenceur bi influenceur bi jottali ko ki nga xamante ni moo yor site bi nekk ci bitim réew ginnaaw plainte boobu nag kii di Awa Baba Thiam exclusivité lañ leen di jox tey jii may wax a yéen ci mardi bi dina jàkkaarloog fii ma caaxoo yow mi ngi jàkkaarloog enquêteurs yi foofu te su sàgganee liy xeeñ ci moom neexut dinañ ko defeere foofu ca parquet mu jàkkaarloog procureur expliquer lu tax mu joxe audio yi ak lu tax mu porter plainte alors que moom moo doon ndeyu mindili li ñu leen ci mën a indil daal tey jii ci mardi 19 septembre 2023 Awa Baba Thiam mi ngi foofu sûreté urbaine di jàkkaarloog enquêteurs yi waaye lay xeeñ ci enquêtes yi ak jamono ji li ñu gis ci procès verbal bi je crois que Awa Baba Thiam su fa jógee day dem fële parquet la jëm jàkkaarloog procureur bi moo xam nag ndax procureur gi da koy bàyyi liberté provisoire moo xam ndax procureur da koy teg mandat de dépôt wala dañ koy defal non lieu en tout cas Awa Baba Thiam tey lañ koy édifier

histoire bi nga xamanteni ni dox na ci audio fuité diggante Awa Baba Thiam ak sala saw mujjee na foofa ca sûreté urbaine plainte bobu Awa Baba Thiam porté woon plainte yaakaar naa ni lay xeeñ ci kawam neexul ndaxte su génnee ci enquêteurs yi su sagonul touti dinañ ko déposer fofu ci parquet manam mu jàkkaarloog procureur yi pour expliquer joxé détail mom ak ay avocat mu donon li ñu leen indiloon tey ci sen acte du jour de ce mardi 19 euh, septembre 2023 fii ci VIP People TV la chaîne des grands événements s'informer juste vrai su ngeen abonné ba noppi bu leen fàttee bés cloche notification bi une vidéo on vous donne rendez-vous à la prochaine fois avec un autre numéro d'ici là restez scotché sur nos programmes ça continue sur VIP People TV